waaw Bécaye ñu nekk ak euh, le grand Jules Baldé ñu xam ko bu baax mu nekk ko xamante ni vraiment kenn dootu ko présenté ci làmb grand avant tout ñu bàyyi la nga nuyoo présenté ak bokk internet yi. waaw ñu sant yàlla jëlee sant bi sant suñu ñaari waajur sant suñu ateex mbàkk yàlla fi yàgg te wér waaw ñu ngi si làmb ji rek waaw di xaar. waaw grand lan moo waral sa teewaay tey ci làmb ji. waaw dama amoon benn poulain buy bëre ma ñëw encadré indi ko waaw. bu loolu weesoo aussi ñu gis ni ki nga mooy Ama Baldé depuis combat am ak Papa tooy tooyalagul xaftaanam toogaay bu yàgg bi lan moo ko waral. waaw mbër yi ñooy xaw ñoo koy moytu rek loolu la quoi moo tax ko bi moo tax combat bi yàgg. bu déggoon digganteem ak Gris Bordeaux combat boobu lan moo ko gàllankoor. si Gris Bordeaux la cangee rek. dégg nañ ci digganteem ñuy wax waxu Bombardier est-ce que Bombardier di nga bàyyi Ama Baldé mu jël ko. waaw si Bombardier la kale rek ama doomu mbër la bëre bëre bëre ko tax a jóg waaw. waaw mais il Bombardier ak bi mu yor nii est-ce que dugg ci. ah tax Tapha Tine mi daan Bombardier Ama ko daan. kon daal bu leen leen seetee avance Bombardier teew pare ngeen pour jël ko. Ah, bu ñu seetee ñu lekk ko de. waaw Gilles bu loolu weesoo am na combat ma am te ne mënoo ñàkk yi yàbbi muy diggante Lac de Guiers 2 ak Boy Niang coow li bëri noo ko gisee. waaw loolu moom après rek yoo xam ne instant bi mënu si wax dara waaw après rek. waaw Gilles ñu lay sant di la gërëm. ok maa ngi leen di sant.